benn kër euh, bi ñu jàkkaarlool euh, ki fi dëkk nag euh, mooy joriñ ji ñu taxawal sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñoo sant yàlla bu baax am daal ñu leen di fay. fii mooy Aynou Mady diggante kon Darou Rahman ak Cité Santé naka ngeen dundee inondation bi ak ndox mi ñu fekk tey muy dugg seen kër. waaw métti rek métti rek comme ni ko ñëpp di dundee xam nga Kër Massar moom ba mu dalay indi coow ndox ba léegi moom ñëpp ñu ngi ciy wax macha allah waaye nag dañuy sant yàlla rek. en attendant Mar mën nga ñu jox situation bi comme ça téléspectateurs yi mën a xam bu baax a baax euh, situation bi xew fii ci cité santé. waaw dañuy sant yàlla rek comme ndox moom ñëpp ñoo ko doon ñaan. waaw ndax jàmm moom booy ñaan moom dangay ngay ñaan rek waaye bul xam fu mu yem. waaw di sant yàlla bu baax nag wax dëgg yàlla di sant yàlla bu baax waaw. waaye nag euh, lii yëpp jàngat la rek. waaw ndax àdduna la. ndax tey bu lii amee nii amoon fi atam bu ñëpp di ko coow tey lii amaat fi. mën naa ne loolu wax dëgg yàlla moom yarul maanaam. mais sànq dama la dégg nga ne lii mi ngi fi doog am kon yéen yéen a ngi doog a dund lii lan mooy lan moo sabab euh, inondation yi fii ci seen quartier bi. non li ko indi moom ñëpp xam nañ ko. xam nga dëkkuwaay bu amee ndox am na fu muy jaar dem mais bu demee ndox mi fu muy jaar pour dem bu ko nit ñi tabaxee wala sax bu ñu ko joxee ñu tabax ko te génnewuñ fu ndox war a mën a jaar dem ay problème lay indi loolu moo dal Kër Massar. kon maar mën nga ñu wanaaleel arrière plan bi fële gis ngeen euh, fële ngeen di gis euh, ci sunu ginnaaw euh, mooy diggante cité santé la ak Daaru Rahman gis ngeen ndox ma foofu dañ fa def mel ni lu fi def barrage li ci gën a doy waar bokk na ci fii ñu taxaw nii sëriñ bi tali la donc gis nañu oto yi ñu ngi romb sànq ba léegi loolu ndax xaluta doy waar. doy na waar métti trop ñi fi jaar sa ñun ñoo la gën a xam parce que fii Daaru Rahman la waa Daaru Rahman wax dëgg yàlla moom ñun ñun ñun ñun mën nañ sant yàlla ñun. ndax ñoo ngi ci kaw tali bi day oto bu rombee sax mooy dugal ci biir kër yi mais Daaru Rahman fii tey jëm naa ne bu gudd jotee ñu suñu bopp sax duñ nelaw ndax li ñuy defee ay dëkkandoo lañu tey fii mun naa ne fii ñu fi bëri dañoo toxu sax ci ñàkk pexe lañ demee ndax maa ngi seen biir kër du toilette du fu ñuy tëdd doo xam ne maanaam yor na ko am ñoo xam ne amuñu étage bu ñu yëg ci kaw suuf lañ dëkk ñuy xuus guddeeg bëccëg nga leen di dégg doo nelaw ndax da di yërëm naka nga déggatee jàngatee plan ORSEC bi ñu wax ndax gis nañu ne yëg ngeen ci seen bopp am déet waaw wax dëgg ah ñu ngi xaar de ñu ngi xaar dundee yaakaar tamit waaw ndax bañ fi dalee wax bëri na waaw wax dëgg yàlla monsieur le maire ñëw na fi xool na constaté na wax na dem préfet tam jaar na fi waaw dégg na sax ñoom président ñëwoon na fi mais xam nga li ñu war a xam tam mooy Kër Massar dafa yaatu Kër Massar nekkul ci benn gox rek la yem dañ dañu war a wër Kër Massar xam Kër Massar tey gis nga fii Daaru Rahman la fii nii mi ngi génnee ci station Kër Massar fii nii euh, côté Senelec ay police ak yooyu fii mu ngi jëm quartier Alaaji Paate bi ngay dégg mooy yoon bi kon c'est-à-dire que intersection yëpp a fiy jaar ba nga fi taxaw bi léegi ñaata minute gisoo oto bi fi jaar nit ñi dañuy wiir fu ne la ñuy jaar kon ni nga ko ni mu ko jàngatee ak ni mu ko waxee maar loolooy situation bi gis ngeen euh, nële euh, lépp ndox la euh, kër gi ñu nekk tey sunu interlocuteur foofu la dëkk maar mu nga ko wane gis nga ndox mi dafay dugg ba ci seen biir kër yi dañoo sax fekk mu wàññeeku gis ngeen auteuru miir bi boo leen ko xoolee ngeen xam ne euh, fii nii euh, donc ndox bi yegg si woon na ba dugg ci biir euh, ba dañu koo tabax donc fële école la Mar mooy école Sotrac bi sem Kër Massar donc diggante Sotrac ak Cité Santé fii yëpp ndox la kon ni ngeen koy jàngatee mu doon situation bu doy war encore une fois bi askanu Kër Massar ak tund yu ko war di dund Ndeye Khady Thiam Tall xanaa rek wàccee foofu kàddu yi jox leen di daje certainement demain ci beneen localité ndax askan wi noppeeguñu guñu ji jugee ci ndox mi nga xamante ni solon na leen guddi solon na leen bëccëg à vous l'antenne jaajëf Mouhamed Diop di la jaajëfal bu baax ak